ku yëngatu ci commerce import export gaawal contactel ma business service yu yaatu te am toppatoo Lol, di ci sérigraphie décoration Holal, amal sa événement rek contacté Maktoum business mu defal la ci ay t-shirt yu rafet am qualité soo bëggee itam mu la ci ay casquette Maktoum business di def ay panneaux publicitaires ay gadget et enseignes lumineuses yow daal fexeel contacté business ci 77 985 47 58 wala 33 926 63 69 Maktoum business service bi yëngu walu commerce import export ci tëttëttëtt sérigraphie moom moo ci ay loxo bi setna na décoration moom waxatuñu ko dañuy confectionner ay t shirts casquette panneaux publicitaire gadget enseigne lumineuse fi dal fi la lépp nekk ci Maktoum business ci Maktoum business professionnalisme fii la fekk bar. mbokk yi da leen ak jàmm ci biir RTV Dakar di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñuy topp gannaaw ba mu sëy ki nga xam ni mooy Ibou Touré Adja Diallo yëgal nag euh, beneen mariage gannaaw ba mu ki nga xam ni euh, moom mooy euh, célébrité bi nekkoon fi a ñu ñu xamal ni nag daal dinay marié wa ki nga xam ni moom mooy Nassirou Seck lii di information bi nag suñu ay naataango yu waa Sénégal info ñoo ko joxe ñi ngi wax ni mariage bi ñi ngi ko takk ci week bi wante dañu ko doon bañ a siiwal maanaam ci dans le plus grand respect dans le plus grand secret ci lañ ko defee loolu moom moo waral ñu bari yëguñu ko waaye kii di Adja Diallo daal di ne devenir ñetteelu Nasirou Seck jamono ji nag Adja Diallo di wuyoo kon ci turu madame Seck ñu koy ñaanal yàlla saxal ko fa may ko njaboot gu barkeel képp ku yëngatu ci commerce import export gawal contactel ma Maktoum business service yu yaatu te am toppatoo lool di yëngu ci wàllu sérigraphie décoration xoolal amal sa événement rek contacte business mu defal la ci ay t-shirt yu rafet am qualité soo bëggee itam mu tegal la ci ay casquette Maktoum business di def ay panneaux publicitaires ay gadget et enseignes lumineuses yow daal fexeel contacte business business ci 77 985 47 58 wala 33 926 63 69 Maktoum business service bi yëngu ci wàllu commerce import export chiptttt sérigraphie moom moo ci ay loxo bi set na décoration moom waxatuñu ko dañuy confectionner ay t-shirt casquette panneau publicitaire gadget enseigne lumineuse fii daal fii la lépp nekk ci Maktoum business ci Maktoum business professionnalisme fii la fekk baax